asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar. ñu ngi lay euh, gërëm euh, bala ñoo sori xanaa euh, législative waroon bokk sa liste nu muy tudd. <laughs> jàmm gën ca kanam. xawoon naa ni naroo jàmm <laughs> jàmm gën ci lépp. waaw jàmm gën ci lépp. mais jox nga ma idée de Babacar te ñoo commencé consultation yi 15 <laughs> yi moom xam naa da ngay jaay sa daamaar ma jaay sama bos rek pour caution. loolu képp. <laughs> jaajëf Fall mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun saa su ne RFM rajo Futur Média ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yenn xibaar yi ak tiis weneen ñeel wàllu mbëkk mi di tukki mi ci anam yi dëppawul ak yoon gaal bu teer si Ndakaaru ak ay néew yenn ci xibaar nag ne euh, mooy gaal ga bawoo woon fukki fan ak ñett ci weeru ut bi romb ci Mbuur defoon téeméer ak juróom fukk ci ñu bëggoon tukki ci anam yu dëppoowul ak yoon mbootaayu njaboot yi lorule ci suuxu batalu Joola ñoom jamono jamonoy ab réeroo seen biir ak it ak mer gu nu mere ñu ne euh, ministre de la culture ak kilifa yi diwaanu Ziguinchor yu ñu jàpp ne dañoo bëgg ak i moo xew wi euh, ci wàllu organiser ak yeneen ca masul ni demee xibaar yi bokk na ci wàllu politique coalition Diomaye président Ousmane Sonko moo leen xamal ne euh, dafa bëgg mook Pastef jaar seen yoonu bopp buñ dul ànd ak ñoom ñoom ñi ci àndoon nag bokk na ca maître musa Diop bu jiite àndu gor ji ne du il élégance maanaam du teggin politique du lu rafet ni Ousmane Sonko doxale ak ñoom APR moom ci yooyu jamono mu ngi wut ab lëngoo diggam ak PDS ak parti réew mi la ñu bëgg mooy coalition bu yaa sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal caa déggee Kumba Sandiane Faye yéene kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Amady Ndiaye. jërë ngeen jëf digital gi may sa mbéy la ñu ci àndal mbokk yi xibaar yi ñu tàmbali ko ku tiis di gaal gu teer si ndakaaru ca waax yu yoof ak ay néew yu mu def ñu ne nag gaal googee ku moywul ndax nduróo na lool ak ba boo woon fukki fan ak ñett ci weeru août ci mbuur defoon téeméer ak juróom fukki aji tukki leerali soxna Ndey Mati Dieng xibaar yépp day firnde ni gaal googu la mu di drapeau allemand bi ci nekk peinture bu verte bi ak bu weex bi ci boori gaal gi itam ñu bind ci turu Serigne Saliou Mbacké moom nag mooy gaal gi nga xamante ne réer na ci mbuur fukki fan ak ñett ba léegi mu defoon lu ëpp téeméer ak juróom fukki nit gaal googu nag ay nappkat ñoo ko gis dafay tolloog yoof ñu daal di tiit loolu yëgal seeni kilifa yoo xamante ne ñoom it ay nappkat lañu ñoom ñoo ñu sax ñoom ñoo ko yëgal kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi ñu dem ci bërëb ba daal di xool li fa xew te moo ne de ba démb ci suba rek bi ñu demee ci njabootuk ñi nga xamante ne ñoom ñoo réeroon ci boobee gaal ba tey ñu ngi doon dundee yaakaar am njort bu rafet ne dinañu gis seen doom yi le ñu ànd ak bakken ah am na dëkk yoo xamante ni tamit nit mën na fay teer ñaare te du la may foo ootee bu dee xaalis yéen a ngi garde espoir ne mën na am ñu ngi dund ah waa dundee yaakaar rek jullit moom da ngay dundee rek. njaboot yooyu kon tey ñàkk lim gu takkoo takku ci ñoom ndax am na ci ñoo xamante ne lu ëpp fukki nit ci seen i njaboot ñu ngi ci biir gaal googee ñeneen ñi am ci juróom-benn. lu ni mel nag dalaat ci kaw mbuur ginnaaw bi nga xamante ne gaal daal dina fiy suux yàggul dara semaine bi la ñu génn rek ñeen fukki nit ñàkk ci seen bakken xibaar bi lekkoon bu ñëwee doon dolleeku ci kawam dafay gën a nekk tiis ndax gaal gi lekkoon ñu gis mu def ay nit yu ñàkk seeni bakken dem Espagne moo leen taxoon a jóg fan yi la yëpp ñu ngi ko doon wër léegi ëpp na weer Ndeye Mathi Dieng Mbour rajo Futur Média. jërëjëf soxna Ndeye Mathi euh, néewub euh, kii ñu wax ne euh, tàggoo ak xelam la defoon maanaam àndul woon ak sagoom moom néewam daal di ko daal di jox ay mbokkam dëkk bi di Diao Weli Samba Ba ci xibaar militaire yi ñoo ko soxoon mu faatu. Euh, jox nañ koy mbokkam ba nu jébbal ko boromam ca dëkk ba mu fekk baax enquête bi nag mu ngi wéy enquête bi ci loxoy section recherche bu Ziguinchor euh, ñu dëkkee ci euh, commune bi nga xamante ni mooy bu Unor département kilin ne bu nu sañoon daal yoon jip ci moomee mbir muy xibaar ju taataane ci sunu ndaw ca gox ba di Bakary Konté Euh, yoon wi ak ay euh, jéeya euh, yu mu defati ci wàllu accident ci Sinthiou Malem bi la yoon commune département Tambacounda ñaari nit ñu faatu ci saa si waroon ci moto benn góor gu tolloon ci at yu xaw a bari ak it ak soxna Euh, ñoom daal benn camion fekk ci tali bi ramas ñu faatu ci saa si chauffeur ba nag euh, teg nañ ko loxo ba ubbi cib enquête foofu it xibaar la bu nu papa nu Diallo euh, baaxee. accident ba woon ca Njama Fall fukk ak juróom-benn ci bakkan rot ca ñu dëkkee ca boobee gox nag ñoo amal bëccëgu ñaan dimanche jëlee ngir way dawul yooyu sunu borom xaari leen aljana waaye it yoon woowee ak accident yu bari yi wàññiku lool président conseil départemental bi nag ci ndaje mi moom la mu bëgg ci état Sénégal bokk na ca booy yoon ñu wutal ko ralentisseur muy route nationale numéro 3 bi Babacar Diouf. ñoom ñëpp a sukk lu ci yàlla. ndax accident yi wàññeeku wala sax bu mënul ñàkk. mu bañati faat bakkan. bu dul ñi fi jëkk a gaañu sax rawatina ñi nga xam ne yàlla moo dogal ñii fi mujj a gaañu te bëgg a toll ci ñaar fukki nit ñu ñaanal leen yàlla sax war naa tax sax ñu daje fi ñaan ci yàlla. loolu lanu sëñ bi joxoon ndigal ñu yaatal ko yàlla defit julli yëpp daja na fi. fexe ba tukki bi jaarul yoon bi dakk tamit bokk na ci li ñu ñaan. ba li nga xam ne mooy accident yi yàlla wàññi ko ak li nga xam ne mooy wàllu dem ci géej gi yàlla fexe ba wàññil ñu ko ba nga xam ne mu seddu. mu teewoon ci barab bi président conseil départemental bu Bambey Babacar Ndiaye ne état bi wër naa fexe. tabax ay ralentisseur ci route nationale numéro 3 bi. parce que gis nañ ni euh, diggante bii nii mooy fi nga xam ne fi la région de Thiès ak région de Diourbel taqalikoo te gis nañ ni am na benn distance lu toll ci juróomi kilomètre yoo xamante ni tali bi dafa tali bi dafa tàlli. oto yi nu leen neex la ñuy dawee donc loolu bokk na ci li nga xam ne dafay cause accident yi kon ñi ngi ñaan les autorités yu bees yi fi nekk euh, notamment le ministre des transports mu defal ñu ay doodaan pour ñu am fii ci tali bu nee benn wala ñaar vraiment dina tax accident yi gën a mën a wàññeeku fii ci zone bi nga xam ne euh, mooy zone Ndiama Fall. bésub ñaan gi nga xam ne moom lañ amaloon ci Ndiama Fall autorité politique ak chef religieux yi teew nañ fi wante tamit nemmeeku nañ fi teewaayu gendarmerie bombe yi. RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar association njaboot yi loru lorule ci suxuk batalo Joola ak ñu rëccee ci boobu accident euh, ñoom ab seen biir na da ca am pàcc bu àndul ci ministre de la culture bi nu ne ak kilifa euh, yu euh, diwaanu Ziguinchor yi bëgg ak moo xew wi jëm ci pàttaliku gi ci weneen wàll it nangu lu nu Boubacar ba ñu ne ne mooy jiite ba tey boobu association waaye sañ baax mi nu ci joxoñ moom ne du tarde ci mbir yi werante ci weneen wàll it jàppul ne la ñuy tuumaal ministre bi ak gouverneur ak yeneen lu wér la. danuy dem Ziguinchor fekki Lamine Ba réeroo am na jamono ji ci biir kuréel bi nga xam ne moo ngi ëmb ñi seen mbokk loolu ci suuxu bateau Joola am na pàcc bi nga xam ne jóg na jamono ji ngir ŋàññi ne nañu doxalinu kilifa yi mu jëm ci wàllu waajal li nga xam ne moom di fàttaliku suuxu bateau Joola bi nga moom Cyprien Lopi moom moo yor seen i kàddu dañoo jot information bi ci mbedd mi ni ki euh, dañuy organiser CRD le septembre ci wàllu organisation boobu noonu euh, dañuy jàpp ni carrément que association bi moom moo ci gën a mun a yelloo association bi euh, dañ leen impliqué wul ci processus maanaam ci organisation anniversaire bi dañuy gis ni le ministère de la culture moom moo ci dugal loxoom à fond pour mun a organiser euh, anniversaire bi mais loolu musul am 22 ans 21 ans après. ci beneen wàll ñoom nee nañu jamono ji ñu ki nga xam nag moo di Boubacar Bax di wax ci tuuru kuréel bi nga xam ni moo ëmb ñi seen njaboot loolu ci suux bato la Joola ndaxte nee nañu moom jamono ji folli nañ ko ba teg keneen ci palaasam. di préciser que Boubacar Ba le 18 février bi passé dañoo jàpp ne euh, nekkatul prés nekkatul président association bi amul bilan association bi nii le compte rendu par rapport ak gestion dossier bi. ki nga xam ne nag moo di Boubacar Ba moom àdduna ci mbir mi jàpp ne nag tuuma yi nga xam ne ñoo koy teg ci ndoddam du tardé di ci tontu waaye nee ne li nga xam ne ñoo ngi koy yegg gouverneur ak ministère de la culture dara amu ci. ah ñun tamit dañu am suñu fula ak fayda parce que association nationale boo ko ñu xam ne association nationale dafa ëmb ñëpp ñoo xam ne ñoo loru ci batu seen seen ñoo des ñoo des ci batu ba ñu def CRD ñoom di wax ni di ngàññe lii keroog jooju ñi nga fa woon ah association éducation nationale nag keneen mënu ko yóotu. coow nag juddu jamono ji ci biir kuréel bi nga xam ne moo ngi ëmb njaboot yi nga xam ne seeni i mbokk loru nañ ci suuf batalo Joola bu ñu moytul nag dana am njeexital ci fàttaliku bi nga xam ne war nañ ko amal ñaari fukki fan ak juróom-benn bu ñu dëgmal Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine feeg ñaari fan lay doon incha allah diwaanu Touba ginnaaw waa Mégg fa ak loraange yu bari yu mu àndal Aliou Nguy Ndiaye maire bu Linguère Mouride Sadikh ñaari dëkkuwaay mu am ca diwaanu Cheikhul Khadim gi yëkkati na ko baaxee euh, ñi ndox yi nangu seen i dëkkuwaay ne bu sañoon moom maire bu Linguère ñeneen ñi ko yàlla may euh, cay defal sunu borom it euh, def lu ni mel maanaam jàppale ñenn ci ñu loru ci waame googi nga xamante ni daanaka lu bari ci seen alal ak moomeel Diourbel ñàkk nañ ko ca ndox ya ñu dem Touba fekki Pape Balla Gueye. maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye daal wuyu si woote wàllu gi nga xamante xalif général woote na ko ngir fexe daal taxawu askan wi nga xamante ne dañoo loru ci ndox yi mu doon mbir moo xamante ne mu tiis la ci gis-gisam faaw ñu daal di taxaw dellusiwaat ci naka la ñuy saytoo lépp lu jëm ci wàllum assainissement ci jamono ji ñu toll. assainissement dañ ko war a defar c'est-à-dire tàmbali na xam nga assainissement li may faral di wax mooy maanaam ay système la yuy jokkaloo la day am conséquence. Mm. mi ngi mel ni tey ndox maanaam dañuy wax ñun ci tubaab dañuy jàng lii dañuy wax bassin versant mooy maanaam dafa am zone boo xam ne bii taw yëpp bu tawee fii la jëm. voilà léegi nag bu fi nekkee tey nit ñi toxu nañ fi. mais ndox mi ko fi daan indi fa mu daan jaar ba léegi mu nga fa. Mm. donc soit boo bañee mu jaar fi da nga koy kar yóbbu ko feneen. waaye boo ko seetaanee rek bu ndox mi baree fu ci ndox ma la jëm. Mm. ndox du bàyyi yoonam loolu olof Njaay wax. lu tolloog juróom-ñaari téeméeri kër yoo xamante ne ndox mi da koo nangu suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñooy délégué bu Ngiraneen ak yeneen ci ay ay eh, gox goxaan jamono ji nag donte niveau ndox bi mu ngi wàcc Aly Ngouille Ndiaye di woote ngir ñi nga xamante ne ñoo yore ay jumtukaay wala sax ñu am ay kër ñu daal di koy jagleel askan wi ngir fexe daal di wàññi seen i jafe-jafe. ñeneen ñi aussi dañ fiy ñëw ma occasionnellement. bu màggal jotee ñoo ñëpp kenn ku ne war na cee jàpp. pour que ñu mën a génn ci situation am na ci peut-être ñu mel ni man ñoo aussi am nañu ay kër ñu ngi fi yaakaar naa ne sëñ bi defee appel mais baax na aussi ñoom it ñu gën a relancer cet appel là. Mm. parce que Touba kenn ku ne xam ne bari na ay murit yi fi am ay kër. Mm. boo xam ne bii peut-être maximum semaine lañ fiy dund. ndimbali di wéy di wàcc fi nga xamante ne mooy diwaanu Touba ngir daal di mën a taxaw askan wi ku ci nekk nag mu ngi def kéemtalaay kàttanam gannaaw ba nga xamante ne moom maire bu Linguère jébal na carburant ñi nga xamante ne ñooy commission commission bi war a jàppale ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi. Papa Balla Gueye Touba Radio Futur Média politique la waxtaan waxtaanee baat bi ne politicien woto bu paan la da nga koy puus mu tàkk dem bala fa loolu waa coalition Diomaye président du nu ko weddi ndax waa PASTEF dañ leen wan ginnaaw ci wàllu lëngoo ne soxlaa tunu leen seen yoonu bopp lañ fas yéene jël ci élection législative yi nu dëgmal ña bokkoon ak ñoom googu mbootaay nag ku ci mel ni maître Moussa Diop jiite mouvement ànd gor yi ne loolee euh, du teggin du lu rafet ci Ousmane Sonko mu doxale ni euh, solde euh, Charles Émile Cissé nag noonu moom ancien directeur de la solde bokkoon ci ñoom ak mouvement am jàpp ne yëf yi leen lu may ñàkk ak wormaag wek manque de considération moo waral it génn na ci coalition boobee leeral li Mouhamadou Aba Bayou maître Moussa Diop bu ànd gor ñi ak coordonnateur bu entité ëllëgu Sénégal Charles Émile Abdou Ciss kontaan ñu benn yoon ci doxalinu Ousmane Sonko. ba tax ñu jàpp ne amul benn élégance ci biir coalition Diomaye président. Ousmane Bis woote aljuma nee na nañ dajee samedi ñu dajee demb mu ne soxlatul coalition bi moom Pastef lay demee parce que wóoluwul léegi le gens yu muy dugal ci ay liste ci coalition parce que ñooñu mën nañ dem ba assemblée nationale war ko donc dafa bëgg ay député yoo xam ne da leen di tënk nga xam du ñu mën a def dara lu mu bëgg lañu yëg ma loolu soo bëggee am accusé ñenn ñi mais da ngay xam ñan ngay wax fii kenn gënu fi gore kenn ñu jógee foofu mu ne coalition Diomaye président sax c'est euh, révolu amatul. président Ousmane Sonko rafetul jaaduwul moom sa boppam xam na ko te képp ko xam ne xam nga dëgg nangu nga ko te vraiment honnête nga loolu mënoo ko nangu comme charte boobu nga xam ne moo ñu euh, lii woon ñu ñi ngi xam ne ñoo composé woon Diomaye président président Ousmane Sonko da ko xotti man ma vraiment continuer di liggéey nii li ñuy def mooy ku nekk na dem sa yoon. looloo tax kii di Charles Émile Abdou Ciss daal di tekk ndombal tànkam ci biir coalition bi. ndax rek dafa jàpp ne Ousmane Sonko dafa bëgg indi andi système parti unique fii ci Sénégal. comme nag ñun dañu doon xeex parti unique. depuis des années. ba ñëw fii tey ñu buub ñu tegalaat parti unique. Eh, man du ma doxee loolu. administrateur civil la li ma tax a jóg mooy réew Sénégal nan la ñuy doxalee réew mi loolu moo ñu tax a jóg seetuñu ci Massamba ak ma rek ca beneen wàll wa maître musa Diop daal di dëggal nekkam ci biir coalition Jomay président ba noppi di xamle ne dana bokk ci élection législative yi ak parti boppam. dañoo nekk aussi membre de la coalition Jomay président. tey loolu moo tax ñu ngi defal suñuy liste buñ ci paree di ngeen ci xam lan la incha allah le vingt le le ñu dem déposé samedi dimanche mooy dernier délai. on ira aux élections wax ak sénégalais yi nga xam ne fii kenn dootu fi tegati ay députés yu topp ci benn benn nit mais ay député mécanique mais ay député du peuple. lu jege ñaari weer des ci élection législative yi régime bi nekk en place woy di ñàkk ay alliés yi nga xam ne dañoo amoon taxawaay bu am solo ci élection présidentielle yi ba tax na loolu mën na jur ay jafe-jafe ci élection tabbu député yi Mouhamadou Aba Bayo stagiaire ci RFM ñu koy gërëm bu baax di ko sant waa Pastef compté bu baax ci seen jeunesse di ndaw ñi ngir am toog yu ëpp ci assemblée nationale bu keroogee 17 novembre kàddu la yu ministre El Malick Ndiaye nekkoon ca Linguère doon fa jiite ndaje mu waa JPS jeunesse Parti du Sud doon amal ca département ba El Malick Ndiaye ñu teew ko Baye Assane Diaw mobiliser tous les patriotes du département ni ñëw waxtaan ci importance li ñu boole ci importance sensu combat bi ak rôle ñoom bi ñuy joué ak rôle bi ñu war a joué aussi ci protéger projet bi ak ci développement wu projet bi ak ci développement Sénégal mais aussi rôle bu crucial bu ñu war a joué ci élection yi ñu dëj mal muy di élection législative yi ndax ñoom ñoo ñu sécuriser vote bi ñoom ñooy wax ci terrain bi campagne donc ñoom ñooy aussi dem jëli carte yi escorter seen rakk yi ñu dem jëli carte yi su ko defee ñu mën a assurer un vote massif et une victoire éclatante dans le département de Linguère donc c'était normal ñu ñëw tey ànd ak ñoom saafonte ak ñoom gën leen a ñaax waaye surtout rafetlu liggéey bi nga xam ne def nañu ko ci dajalewaat mbooleem jeune département yi góor ak jigéen ñu toog xam ne nag lii jot jot na Linguère moom politiquement département bu jafe la wala bokk na ci département yi gën jafe li ko waral mooy historique d'abord euh, ci composante yi waaye tamit euh, lépp loo xam ne jëm na ci yaatuwaay bi nga xam ne 19 commune la di mën a dem dëkkoo dëkk këroo kër ndax da ngay gis benn commune rek boo xam ne day am lu mat 130 villages waaye nag ñu ngi doon liggéey ci ay at te liñ doon liggéey mu ngi nekk di fay ndax ñun boo xoolee d'année en année dañuy gën a yéeg ñoom ñi gën a wàcc tey buñ demee ñun ba ñuy gagné ay commune entières comme ay Linguère ak ay Gassane ak yu ni mel ça veut dire que la woon woon na que élection yi di ñëw pour doggali la jël département mu nekkoon monsieur le ministre El Malick Ndiaye bu Pastef ca Linguère ak Baye Assane Diaw alliance pour la république APR moom euh, di gën a yaatal géew ci wàllu woowu sumb nay waxtaan di gëm ak parti démocratique sénégalais bu maître Abdoulaye Wade naka noonu parti réew mi bu Idrissa Seck lanu ci jublu ñetti parti yooyu mooy fexe ba am mbootaay gu yaa ci election yi nu dëgmal jëm ci pal assemblée nationale beneen 17 novembre 2024. gàmmu Ndiassane amal nañu ko démb ci dimanche gi ministre intérieur Jean-Baptiste Tine général Jean-Baptiste Tine ma nga fa woon ngir gouvernement bu Sénégal sàkku na ci kilifa dine yi ñu wax ba ndaw ñi wan ginnaaw mbëkk mi ak i loraangeem naka noonu it porte parole luk njabootu maam bu kunta bu Ndiassane sàkku ci politiciens it ñuy waxtaane fulaak fayda jublu ci li gën a soxal réew mi ca ba wax ju sew ji euh, sàkku na it euh, ñaawlu na it ñi nga xamante ni ñooy di ŋàññilele suñu kilifa diine yi nga xamante ni bu nu muccee tey ci kéefër loolu maa ci yokk suñu mag ñu baax ñi ñoo ko waral ñu dem Ndiassane fekk Cheikh Anta Diop. dimbalante si suñu biir fexe nag ba ñu am doole dimbali ñi ñu tane di thème bi nga xamante ne xalif général des cadres fii ci Ndiassane moo ko fësal ngir ñu waxtaane ko ci gàmm gi jëwriñ ji nga xamante ne moo yor wàllu biir réew mi di ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine wax ne nag thème bii de dafa mel ni dafa ñëw ci waxtoom ginnaaw bi ñu nemmee ko ca Touba. mbënd mi nga xamante ne am na fa sonal lool askan wi sénégalais bu ci nekk war nga cee dugal sa loxo jàppale leen. te mu gàmmu bi ren li ngeen ciy wax ni mooy dimbalante maanaam solidarité te loolu dafa am solo lool te ñun dañ ko soxla ci réew mi rawatina ci jamono yi ñu toll loolu sëñ bi njiitu réew mi mu ngi masawu mbooleem ñi ñàkk seen bakkan ci taw yi. beneen ponk boo xamante ne wax nañu ko bokk na ci xale yi nga xamante ni ñu ngi yéeg ci gaal yi di dem Espagne ba di ci ñàkk seen bakkan ministre de l'intérieur nee na woo na ci kilifa diine yi ñu wax ci ngir ñu mën koo dakkal. dinañ ci taxaw suñu kéem tolluwaay kattan rawatina ci at yii di ñëw ci kanam sëñ bi njiiti réew mi mu ngi sàkku ci xalif bi mu ñaan sunu borom mu def jàmm ci réew mi. Cheikh Al Khalifa Kunta di yor kàddu xalif général des cadres moom mi de nee na li mu nemmeeku ci réew mi de war nañ ci cee jóg politique politiciens yi ŋàññante seen biir ak yenn kàddu yi nga xamante ne ay ndaw ñu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci kilifa yi diine yi. ak mbooleem kër diine yi nekk ci Sénégal réew mi ëpp naa caaxaane nañ leen génne manière nekk ci suñu xol yi. politique du animosité. nekk nañu toog pencoo ko waxtaane ko léeg-léeg sax nga dégg un mal intentionné taxaw naan ani liggéeyu Serigne Touba ba mbënd di am ci dëkkam kooku ñu koy xamal ni makkatul mukarrama moo gën moo njëkk a indoone ba xalif général des Khadres di maam Cheikh Makhtar Sidi Kunta ñaanal na réewum Sénégal ngir jàmm sax fi dàkk teyit nawetub ren bi mu nekk nawet bu am barke Cheikh Anta Diop RFM koor geeg Malal si ñor Diagne maa ngi lay ziar la delloo ziar Assane. ci looy yëngu. wutum koppar rek. allah ah, d'accord tubarkalla mbaa nga ni taxawal nañu pool judiciaire financier. ah man ci ma yëngu yooyu nu ma dem foofu. <laughs> bisimilah <laughs> te ñu ñu doxal ak footballu jaraaf ñoom dem dañoo wane seen bopp ngir dem ci phase de poule coupe CAF yi dañoo daje ak waa Racine euh, club bu Abidjan door ko ñetti bal si dara ca Thiès. loolu nag ba mu neexee ba sotti Malick Daaf bii di ne entraîneur bi yëkkati na ay kàddu ci micro euh, Soda Thiam ak euh, Mal Malick jaw ñoom ñaar ñoo nekkoon ca terrain ba euh, nangu noonu ay kàddu may Daaf ba jongante ba noppe booy wut dara yàlla may la ko nga war a njëkk def mooy sant yàlla parce que suñu mbëbët ci début ba dañu waxoon dañu bëggoon déjà dugg phase de poule moo tax teel nañu bëggoon ñu am ko donc xaaruñu woon match bu yomb parce que match bi vivre nañ ko difficilement on a mais on a bon on jamais laissé def nañu 0-0 foofu mais xamoon naa ni match bi piège sport piège parce que xamoon naa ni 0-0 foofu waa ji bu ne bàyyi naa ko bal bi bàyyi ko moom mu ñëw parce que li ma bëggoon mooy contre ko dugal ko deuxième bi yombul woon souffert nañu kafuye nañu booy def nañu ay erreur mais après yàlla def na li ñu bëggoon stratégie bi ñu tegoon mettre ko en place yàlla defal nañu réussir na parce que dugal nañu ko deuxième bi à la mi-temps apporté naa correctif parce que amoon na quelques problèmes sur le plan placement parce que ak Koyta parce que ñoom dañu obligé suñu défense à jouer à 5 parce que dañu jël deux attaquants fixé leen ci kaw donc Maxa moo doon jouer numéro 6 il fallait moom mu dugg jël euh, Tafa jël comme ça Aziz libéré comme ça maam deux erreurs latéraux am na numéro 8 ak numéro 11 bi jeu de couloir ils sont très bons donc les Brassens ont apporté li ñu bëggoon yàlla defal nañ ko gagné nañ 3-0 sans encaisser bii joué ci 4 matchs dugal nañu 7 bi dañuy sant yàlla yombul def nañ ko waaye comme ni ma koy waxee lépp ci humilité lay xewee. li ci am solo daal mooy def analyse rapidement corrigée et puis ñu delluwaat ci liggéey bi wàccee suñu bopp préparé waat phase de poule allah. jaraaf nag 2021 la mujjee dem ci yooyu les phases de poule ñu wax itam si footballu U20 euh, équipe nationale bu Sénégal tournoi UFOA bi Sénégal qualifié na ci euh, wàllu demi-finale yi nee nañu sax léegi Guinée Conakry lay dajanteel ci euh, demi-finale boobule beneen demi-finale bi lay dox diggante Sierra Leone ak Guinée ñaar équipe yi dem ci finale tournoi bi dañuy daal di qualifié directement ci Coupe d'Afrique bi ñu tegleel ñi am ñaar fukki at Sénégal nag mooy champion d'Afrique ci boobule limub gone. démb itam ñu ngi doon xaar ci ngoon si jongante bu amoon solo doxoon diggante City ak waa Arsenal ci Angleterre ma bokkoon si juróom-benneel bi journée <clears throat> ñaari ki bi dañoo témbo ku ne amoon nga ñaar ci sa kangi morom Arsenal donte dañoo euh, génne woon seen benn joueur ci euh, njeexitalu partie bu njëkk bi waaye dékku nañu ñii di waa Manchester City daanaka diirub euh, ñeen juróom fukki simili ak juróom-ñett ci lañ daal di daje rek dugal ci njeexitalu jongante ba bi tax nu euh, Tembo leneen ci wàllu jongante Marseille ca France ngay woy ba léegi di doxal daan na fa Lyon ñaari bal si euh, ñetti bal si ñaar le Marseille daa ji rek dóor ñii di waa Lyon ca Lyon ci waxtu beneen boo xam ne moom euh, fële ca réewub itali AC moom moo fa dalal Inter bu noppi daal di koy dóor ñaari bal si benn AS Roma daa ji dóor Udinese ñetti bal si ci dara ñi nag di waa Fiorentina itam dóor nañu Lazio Rome Euh, ñaari bal si euh, benn Bologne dóor Monza ñaari bal itam si euh, benn ci wàllu tàggat yaram kon ajasan démb ci dibeer ji loola mooy li si gënoon a fës ci àdduna bi. jërëjëf Malal Junior Diagne ñu ànd léegi ak soxna Kumba Sandiane Faye ci chronique culture bi. dal leen li jiitu biennale Dakar 2024 lu tolloog fukk ak juróomi journaliste yu yëngu ci wàllub aada dinañ leen tàggat ci wàllub critique d'art visuel lu ko dalee altine gi tàggat googee dina dem ba 25 septembre mu doon ab initiative kuréel gi ëmb mboolem journaliste yu yëngu ci wàllub aada fii ci Sénégal ànd ceeg atelier du Sahel bu Kalidou Kassé objectif ub atelier boobee ñu duppee tàggat art day yombal yooyee journaliste di yëngu ci wàllub aada ñu daal ay tableau d'art ñu ànd ci ngir ñu daal di mën a xool jàngat bu baax lii di ab œuvre d'art dafa am ay étapes yu bëri yoo xam ni moo ko jiitu ci li ni mel moo tax ñu daal di tekk atelier bi ñu tuddee tàggat art association presque culturelle daal di koy sumb Alioune Badara Mané moom moo jiite bi léegi association. lii nag dañ koy def ngir dëkk mën loolu nga xam ni mooy biennale de Dakar léegi nag ñu gis ni euh, xew-xew yu mel noonu soo cay naree jëm da nga war a ay journaliste ngir su ko defee demee mën a am xam-xam boo xam ne dina leen permettre su ko defee loolu ñuy woowee ay œuvre d'art muy ku ko ci mën a xool mën a def liggéey bu mucc ay ci lu jëm ci wàllu art visuel. la ñuy xaar nag ci njeexitalu formation boobu lay mooy journaliste culturel bu ci nekk daal di am ay jumtuwaay yu mën sëkk yoo xam ni dana daal di mën a saytu ak jàngat ab tableau d'art waaye mën cee bind article de presse am bu jaar yoon. formation bi dañ ko ubbi ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy participer dina leen jox ay raaya ak i lijaasa yoo xam ni dina wane ni kay tey jii yow ku ci mel ni Salamata boo ci participer bokkoon nga ci formation boo xam ni da nga doon yokk sa xam-xam ci lu jëm ci wàllu art visuel ñu ngi ci xaaral it ay liggéey yu mucc ayib ndaxte képp koo xam ni xam ni dina wane nga doon def xam nga lu tax nga ko doon def te am na njëriñ boo ci lu jëm ci wàllu art visuel bi nga xam ni bi nga doon def amal na fukki fan ñett ci weeru sàttumbar fukk ak juróomi journaliste culturel artiste peintre bi di Kalidou hectares lu toll ci ñetti fan cérémonie d'ouverture bi dinañ ko daal di amal ci teewaayu autorité yu ministère de la culture. salamata ñu wax ci wàllub film documentaire bu journaliste réalisateur sénégalais bii di Cheikh Tidiane Ndiaye jëmale ko ci ki fi ne woon njiitu réew di Abdoulaye nañ ko démb ci bi di xam ne ne ab film documentaire la buy daal di retracé jaar jaarub maître Abdoulaye Wade ab jaar jaar bi nga xamante ne moom ci jëmu boppam moom moo ko nittali en disant que c'est une application du projection avant première pour boobee film documentaire waroon am ci cinéma Pathé ñu ko mujjoon fomm ba jimi jamono fii la yem di daje ëllëg. association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm si digitalisation attestation assurance automobile Touba Darou Salam Caro Prestige seen le de bébé Doudoune ak NCA assurance ak nouvelle prévention routière bu Sénégal ci njiitalu association bi ëmb compagnie d'assurance yi ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye jiire ngeen jëf tubaab bi ne jaan yi rek ñoo dul daje seul les montagnes ne se rencontrent ne leen ko waxati na dëgg ndax lu ni mel la ñu gis ci réew mi ci élection législative yi ñu jëm

gi ci wote législatif yi ci tëgg ay alliance ci la politiciens yi toll Parti démocratique Sénégal ak APR joxante nañu loxo Amadou Ba fexe na moom ba lijjanti ab ànd diggam ak waa parti socialiste teg ci di lijjanti ni mu ci boolee Khalifa Sall Le Quotidien bind ne géopolitique bi tàmbali naa jax te wote député yi yegseegul Amadou Ba fexe na ba am lu toll ci fanweeri parti politique yu fari ci gos bi yu ko jox bopp ci weneen wàll it nañu ne waa APR àndandoo ci wote député yi ñu jëm ci jamono jooju coalition parti socialiste Amadou Ba ak Khalifa Sall yéenekaay bi nee nañu mi ngi xeeñ bu baax a baax journal Le Mandat di ñu xibaar ne coalition mi ngi waaju juddu ci diggante parti démocratique Sénégal ak APR coalition bi juddu te aw yoonu faatu di coalition Diomaye président Ousmane Sonko sédd nopp yóbbal ak parti yi demoon fekki Pastef ci boobu la coalition nee na leen soxla wuñu leen ci wote législatif yi parti bi mu di Pastef rek doy na ko Soleil national di ñu dëggalal xibaar bi ci xëtt mu njëkk mu di alliance yi sosu ndànk ndànk ci opposition bi waa Pastef ñoom fas yéene demel ak seen cëggal guy nee nañu duñ ci ànd ànd ne ñu ci xët mu njëkku lii quotidien Ousmane Sonko li mu def nuru na ay wor mu di trahison jëmi ci li taxoon a jóg bi te bu Pastef xoolee ba ñàkk wote député na ko leer ne daanaka ñàkk na pouvoir bi sour soixëy di ñu wax li xew ci réunion bi Ousmane Sonko woote ba séddoo fa yóbbal ak ñi àndoon ak ñoom ci coalition coalition président journal L'Info nañu allié yi woon ci coalition Diomaye président am na ñenn ci ñoom ñu Sonko yëngal seeni xol ba tax ñu tàmbalee génn ci coalition ba le public nañu Charles Émile Ciss génn na ci coalition ba maître Moussa Diop moom it mi hésité di xel yaar ci ndax dafay dem am ndax dafay toog alliance beneen bu ñu gis ci réew mi mi ci journalisé ko kii di Khalifa Ababacar Sall Déthié Fall ak Serigne Moustapha Sy journalisé ko nee am 17 novembre ànd naa ki ñoñam ba ñu taxawal coalition bu ñu tuddee Manko liggéeyal Sénégal ba leeral programme bi ñu indi ngir liggéeyal ci Sénégal journal Tribune nañu ca Fatick it am na mbër mu ñu fa ngemb ngir mu bokk ci élection législative yi muy Oumy Fall Diouf présidente association Nanox Sénégal ay jigéen yu nekk ca Fatick ñu naan leen les femmes transformatrices ñoo ko na jugal toogaay amatul ñoo ko samp ngir mu bokk ci législative yi ba mu mën a doonub député ci assemblée bii di ñëw ndax nee nañu dañoo yaakaar ci moom moom Oumy Fall Diouf ay kàddoom ci xët mu njëkk journal Tribune ne chômage ak misère gu am ci réew mi loolu rek rek tax gone yi réew mi di jóg di fëx di mbëkk gaali loo cooy dem bitim réew libération nañu barça wala barsax am na gaal gu ñu ne mbuur la déparé bu yàgg ba léegi kenn xamul fan la gaal ga nekk gaal ga teer na démb ca yof waaye amul kenn ku ca newoon ba gaal gay teer xottu gaalu kese la ñu gis am na it geneen gaal gu bëggoon a dem sandarma yi ñoo ko dogalee ca mbéy xottu gaalu kese gi ñu gis démb ca yof tir bi nee nañu lu jege ñaari téeméeri migrant la yeboon ba muy dem waaye ba gaal gay feeñ gisuñu ca kenn association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation assurance automobile mobile Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune ak nouvelle prévention routière bu Sénégal ci njiitalu association bi ëmb compagnie d'assurance yi ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen yu doon teewlu xibaaru juróom-ñetti waxtu yeeg RFM xibaar yi bokk na ci fa Mouhamed Ndiaye daanale gaal gi teer si démb ca Yoff te ñu njort ne ba bàyyi ko woon Mbuur le 13 août 2024 defoon téeméer ak juróom fukki doomu aadama Euh, ñuy njott rek euh, ñu daal di faatu ci yoon wi loole bu dee am na dina dugal tiis weneen ci waa Mbuur euh, du ñàkk bëccëgu tey gi incha allah soxna Ndeye Mati jëng dina ci ànd ak yéen ci wërum xibaar bi association njaboot ñi lorule ak it ñi rëccee ci suuxuk batalu jola ñoom di waajal lu jëm ci wàllu commémoration ñetti fan a ci des waaye ñenn ci ñoom benn pàcc da ca gis ne ministre de la culture ak euh, kilifa yu diwaan Ziguinchor administration territoriale dañu bëgg ak moo xew ca mësul ni demee ci weneen wàll lit ñu ne Boubacar Ba reconnaître luñ ko ne njiit ba tey ñeel boobu association Boubacar Ba ne du euh, des ci werante amulu ko solo genn gi tuuma yi ñu yëkkati teg ci ministre de la culture it ak administration bi euh, moom jàppul ne yu yu wér la wàllu politique ak coalition Diomaye président Ousmane Sonko xamal ña mu ci àndaloon ne ñoom Pastef seen yoonu bopp lañ fa yéene jël bu keroog 17 novembre teelu ko yëgle nag moo waral ku ci mel ni maître Moussa Diop ak sëñ Charles Ciss yëpp jàpp ko ñàkkum considération di kon ñàkk yëkk ak wor ma jëmee ci ñoom ñi nu àndaloon démb APR moom ci yooyu jamono mu ngi wër lëngoo diggam ak PDS ak ñu mel ni waa parti réew mi bi Idrissa Seck lanu ci jublu mooy taxawal mbootaay gu yaa bu keroog gi 17 novembre 2024 di élection yeneen jëm ci taxawal assemblée nationale beneen Amady Ndiaye ne woon ci technique bi ñu koy gërëm ak sa Mbaye mi woon ci digital gi Hadj Assane Gueye ci micro bi ci kanam tuuti penco gi RFM incha allah àndaat ak colonel Mamadou Aaj xereñ ci wàllu karange di sécurité ci kanam tuuti 8 lay doon incha allah rabi ñu yendu ak jàmm.